pour wone le vrai visage du régime répressif dérive bi nga xam ne ci la ñuy ci la ñuy glissé wu n'est-ce pas on va le faire rek dama siiwal benn lettre boo xam ne Macky Sall moo ko bindoon en deux mille en deux mille douze. Mm-hmm. jubal ko Navi Navi di dénoncer ay interdiction de manifestation pacifique di dénoncer alkaati yi nga dañoo rey ay nit Dakar ak Podor di dénoncer ay décision cour cour constitutionnelle mi nga xam ne dañuy valider mandat ma ma troisième candidat Abdoulaye candidature illégitime de Abdoulaye tey lépp li nga xam daf ko nga ñëwoon dëmb wax ko ci kaw yëgal ko au niveau international moom lay def tey et au Euh, euh, justement ñu ko seetaan euh, justement monsieur Gassama dañu gisoon ni ay manifestation yi bu amaan ni ñu ciy arrêté de coutume dañu leen daan téye quelques heures rek ñu bàyyi leen tey lii ñu nemmeeku est-ce que wanewul ni que régime bi dañu taxaw fu dëgër foo xamante ne pour recul ñu reculer du yomb l'Égypte bi mooy installer la terreur fexe bi ñëpp ragal ñëpp tiit comme ça président déroulé da mm-hmm. ngeen ko ñu ne dem na CEDEAO ñu ne nañu signé pour limitation demande mu ne moom du signé mm-hmm. te avant muy avant mu bañ a signé ça de la CEDEAO waxoon na ko fi devant les soi-disant jeunes leaders africains ne leen man dama contre limitation de de de de, mandat mhm. alors que moom moo fi jëloon baat yëkkati ko wax ko àdduna bi yëpp dëgg ko loolu nga ci am ban dafa bëgg def troisième mandat et que il veut instaurer un régime de terreur mhm. na ñëpp ragal mhm. kenn du génn manifester parce que soo manifester non seulement euh, mën nga ci ñàkk sa bakkan waaye tamit mën nga tëdd ci biir kaso parce que ni nga waxee rek dans le passé dañu naan téye gars yi ngoon ñu bàyyi leen ñibbi seen kër mais cette fois ci jàpp leen bëgg leen traduire en justice juger leen peut-être leen sax nest pas ça montre une dérive autoritaire. loolu képp koo xam ne Sénégal nga waroo ko nangu te képp partenaire sénégalais nga au niveau international on va interpeller tous les partenaires du Sénégal au niveau international. Mm-hmm. pour le prendre à témoin nee leen nag. démocratie Sénégal su eggee fi tey ba Macky Sall di dem di accéder au pouvoir de façon démocratique de façon euh, n'est-ce pas sans violence c'est parce que am na ñoo xam dañ ci ñàkkoon seen bakkan mhm. pendant les années 60 ñoom Omar Blondin Diop ak ñeneen ak ñeneen pendant les années 90 ñu bëri dañ ñàkk seen bakkan pour qu'on en arrive on en kon on doit pas accepter mhm. que on retourne en arrière mhm. duñ ko nangu 21e siècle Sénégal du mus a nekk Congo Brazzaville Sénégal du mu a nekk Gabon du mus a nekk Côte d'Ivoire du mus a nekk Guinée Sénégal c'est un pays particulier waaw on ne l'acceptera pas. d'accord alors. compétition électorale citoyen ñoo ko war a arbitrer. Mm-hmm. ndax ñëpp dem élection n'est-ce pas ñëpp présenté wu citoyen atte mm-hmm. waaye yenn pratique yoo xam ne euh, waroon nañ ko dépasser. Euh, Abdoulaye a vécu toutes ces pratiques hein dañuy dafa mel ne on est retourné à dans les années 90. parce que mm-hmm. lépp li ñu wax ni tey Abdoulaye daf ko dund. Mm-hmm. te bi mu ñëwee en 2000 li mu njëkk wax mooy j'ai amnistié Abdou Diouf même si le moment on pouvoir amnistier. Mm-hmm. assemblée mooy amnistier dafa ne j'ai amnistié Abdou Diouf. loolu ça en disait long sur coono ak bi ñu ko teg. balaa muy egg ci nguur dañ ko war a dépasser nag léegi. war nga mun a nekk opposant def sa politique. te kenn du la fitnal kenn du la mbugal war nga mu nekk un homme d'affaires contre le pouvoir te kenn du ñëw di lay fexel ak activer ay impôt activé lu nekk pour fexeel la. Mhm. loolu yëpp ñu ko war a mhm. dañ toll foo xam ne tey war nañu dépassé ces situation la mais mais justement euh, Sénégal comme ni nga ko waxee léegi. Mhm. référence la ci wàllu démocratie. référence la woon euh, la woon. voilà <laughs> tey ñoo ñu doon ñu xoolee bëtu référence bu ñu gisee tey ñu dem ci kër ay opposants à savoir Ousmane Sonko Barthélémy Diaz ñu encercler ko euh, doo dem julli ji sa jànq bu dem marché du ñëw dugal ndugg bi et cetera euh, lan lan lay def ci bëtu. mais xoolal rek xoolal titre média internationaux rek. commencé na les médias internationaux ont commencé à s'intéresser mm-hmm. ah te ñoo kenn mënu lañ jënd ah maa ñaawlu d' abord le que am na médias yu bëri yoo xam ne ñetti doomu Sénégal ñàkk nañu seen bakkan ñu éleksi ñëpp titré mm-hmm. di bako l' état euh, a loolu média bu responsable war na ko wax. Mm-hmm. tey France soo amoon manifester benn nit rek dayee scandale lay doon en France. scandale bu rëy ministre de l'intérieur sax mun na ci démissionner mais fii ñu rey ñetti doomu Sénégal ay médias génne di tàccu di di di di di di di di di ci di ci bëgg sax j'ai vu des journalistes yoo xam da nga ci bëgg di bindee di naan trois morts à zéro. c'est responsable. donc il faut que ñu wormal ñu fonk doomu aadama fonk bakkanu doomu xam ne benn doomu aadama su rootee rek c'est extrêmement grave dans un état démocratique. voilà kon. Senghor bi muy demee Sénégal bokkoon na nekkoon na pratiquement unique pays en Afrique de l'Ouest fi doon fi amoon démocratie multipartisane bi mu demee ñetti parti la fi bayoon waaw dernière élection bi mu bi mu contesté 78 moom la woon Ablaye ak Majmout Diop jamono yooyu Afrique de l'Ouest fi benn réew amu fi démocratie multipartisane Abdou fi ñëw daal di ne jàkk baa ngi ku bëgg rek dem ku bëgg rek na nga nodd kon am na moment yoo xam ne soo tuddoon démocratie ci Afrique ci Afrique laa wax de Sénégal yi njëkk a tudd waaye tey réew yi nekkoon ci dictature ay Cap Vert ay Botswana ay Afrique du Sud ñoom ñoom ils sont devant nous ils sont parce que simplement ñun dañu nangoon ne politiciens yi war nañu mën a renier wu lépp li nga xam ne wax nañ ko lu baax yaakaar bi ñu suscité pour ñu woteel leen bees bu ñu ñëwee pouvoir mën nañu def le contraire te ñun ñu nangu ko ne neex na rafet na baax na mm-hmm. peuple bi peuple bi nga xam ne day day accepté wul di politicien peuple boobu toujours ci coono lay nekk. Mm-hmm. wax ngeen ni vous allez prendre à l'opinion à témoin les partenaires mais est-ce que président Macky Sall jiituwu leen parce que temps yii passé gis nañ ko mu dem France 24 dem ci yeneen médias étrangers et puis di fa wax comme si moom da doon wax ak communauté internationale pour les rassurer est-ce que jiituwu leen foofu. dama ne mën nañu jiitu ci Macron mais du Macky mën nañu jiitu ci Emmanuel Macron waaye mën nañu jiitu ci peuple français. loolu mooy lan. ah en France il y def na sax Macron léegi il sera obligé de tenir compte de l'opposition au Parlement. Mm-hmm. donc mun nga Macron mën a soo déclaration publique ne je soutiens Macky Sall te du ko def. <laughs> est du ko def. lu tax tey France. France xam ne tey en Afrique tey darajam dafa wàññeeku jeunesse africaine bi dañ ko woon gannaaw kon tey la France fait très attention bu ñu nangu nag jël suñu problème yëpp di koy teg ci kaw France am na yoo xam ne ñun ñoo ko war a régler ñun askanu Afrique jeunesse africain yi ñoom ñoo ko war a régler seen problème waaye bàyyi di joxoon tout le temps tamit France wax ma ne loo France nekkul ci li xew Côte d'Ivoire ak Guinée ak yeneen feneen mais. dañoo war a xam ne France ñëw fii defar ñu ay changement de mentalité changement de comportement ak yeneen ak yeneen. Mhm. du nguuru France moom moo koy def Mitterrand defoon na ko waaw à la boule nee na gars yi président yëpp nee leen képp ku bëggati loo France dugg ci sa koom-koom na nga taxawal démocratie multipartisane ci la ñoom Bongo ak ñoom Sassou Nguesso ak ñeneen di daal di créer. mais su euh, fekkente France dafa am fi ay intérêt yoo xam ne ni peut-être que président Macky Sall rek moo ko mën a assurer. est-ce que ñoom it euh, seen intérêt du protéger peut-être le régime qui est en place. mais loolu dañ ko dépassé France war fi am intérêt boo xam ne ëpp na intérêt peuple sénégalais Sénégal état bu souverain la war na mun a def affaire avec n'importe quel état du monde mais il faut mu am bénéfice mutuel ku ne gis ci boppam ci partenariat bi man je crois képp ko fi mënta toog Sénégal fii. mënoo jël France def ko sa noonu c'est pas possible parce que dañu am ay liens historiques ak France te lien yooyu France am na intérêt pour préserver ko Sénégal am na intérêt pour préserver ko mais dañu war a fexe ba coopération bi nekk une coopération gagnant gagnant Sénégal gis ci boppam France gis ci boppam entreprise française suñu fi ñooy ñoom tamit liggéey bi ñu fi def nag Sénégal yi gis seen bopp ñoom gis seen bopp waaw loolu mooy coopération d'égal à égal dëkk Asie loolu nañu def. d' accord sànq yaa ngi koy junj président Macky Sall ñëpp ñi ngi fàttaliku bu mu doon bind Nations Unies ngir ñaawlu dérive yi nga xamante ne nii nguur gi fi nekkoon moo ko doon def moom tey mu toog place boobu tey jii nii mu mel ni doxalin ni pratiquement changé wul kon est ce que tey population yi amuñu tey jii nii légitimité boo xam ne war nañu mën a tiit ci ñi bëgg tey diriger euh, Sénégal. waruñu tiit rek waaye dañu war a agir waaw tiit rek fajul mbir mi tiit sa waruñu ko def. dañu war a fexe ba dirigeant politique mais parce gisee similitude dañu war fu nekk opposition le président Macky Sall mi yàgg na fi wax ni par exemple nañu def bulletin unique yàgg na fi wax ni nañu organiser élection yi te ki ko koy ki koy def du bokk ci parti au pouvoir donc mu mel ni yooyu moo nekk di ñëwaat est-ce que tey jii aussi je veux dire que ni mënu ngi def attention aussi ci ñiy bëgg a taxaw tey ni dañu bëgg a jël réew mi non dañu war a gis nga dëkk dañu war a fexe ba ku fi nekk ci nguur gi wala ku war bëgg a nekk bëgg a jël nguur gi ëllëg ñoom yëpp ñu am ay yoo xam ne dañ ko respecté gis en France am na yoo xam ne président su ko defee élection ay junne junne français yi ci dëkk France yëpp ñoo wàcc biir ci biir mbedd mi manifester parce que ñu may citoyen ñu exprimer seen colère. mais nan la ñuy respecté. nan la ñuy respecté loi yoo xamante ne ni tey jii ñëpp gis nañ ni interprétation yi. Mhm. dafay poser problème gis nañ barki de Ndiaye li am ci élection yi ak list yi investiture ak surtout euh, conseil constitutionnel. mais il faut que ñu indépendante. justice indépendante foog ñu am ko. Mhm. foog ñu xam nga problème justice mais ñi fi nekk tey ci nguur yi Moustapha Niass ak dem si Ousmane Tanor Dieng yal na ko yàlla xaaree àjjana. amiin ñoo fa organisé seen mhm. soo liiree charte de gouvernance démocratique des assises nationales liñ ci wax dafa leer ne nañu justice su Sénégal bokk nañ ci problème réew mi te dañ ko war a réformer te doon ñu def ay proposition bi ci njëkk mooy nag président jóge ko constitué la magistrature parce que tey moom ma fa toog nekk fa président. Mm-hmm. biñ ci paree Macky bi mu toogee dafa créer li ñuy wax yi commission nationale de réforme des institutions kuréel boo xam ne daf ko ay millions ay centaines de millions la fa def ñoome ci euh, euh, suñu bàyyi Amadou Mahtar bu ne ko jiital ma kuréel bi. nañu war Sénégal yëpp laaj sénégalais ñu wax ñu lan lañu xalaat ci institution yi soo lire seen rapport li ñu wax ci justice ba leer na te booba ñu nekkoon ci ñu affaire aspect juridique ou CNRI bokkoon nañ ñoom Sidiki Kaba ay professeur d'université extra mais li ñu ci wax leer na ici au Sénégal justice bu indépendante mm-hmm. donc dafa may réforme yoo xam ne dañ ko war a def pour que attekat yi moom seen bopp réforme tant que amul n'est-ce benn juge mun na fi nekk bañ li nga xam ne moom moo xew ci biir ñu dax ko mu gënee wala mu dem démissionné comme juge dem wala bëgg nga toog ci biir def ko ñëpp. c'est clair teelu ko soo gisee tey ñu koy ñu ko wax lu nekk. Mm-hmm. Eh, di koy trembal ci yoon bi lan la teelu ko dafa bëggoon am justice bu indépendante. alors ah, mandat ñaari mandat yëpp daf ko def di xeex pour que Sénégal am justice bu indépendante. mais ñun citoyen est-ce que defoon nañu li war a def pour jàppale ko. defuñu ko monsieur hmm? Gassama yaa ngi koy wax sànq euh, que ne euh, le problème euh, c'est l'administration ndax dañ ciy comprendre c'est la direction générale des élections ak le conseil constitutionnel et aussi gis nañu la société civile su Dao wax ne faaw ñu reprendre le processus électoral pour une sortie de crise est-ce que yéen également loolu ngeen di prôner. non man du ma prononcer ci loolu naan dañu dañu war <laughs> war a reporter wala dañu war a reprendre. du du ma ci prononcé wu. après euh, dañ ko interpréter de dans tous les sens. ma li ma xalaat mooy euh, li nga xam ne moom moo xew tey administration mu ngi ci dugul ak conseil constitutionnel impasse bi waaw naka lañ ci génne je ne sais pas parce que dañ toll foo xam ne c'est très difficile pour ñu génne ci ñu bëri dañu xalaat ne pour ñu mun ci génne mooy il faut que ñu reporter élection yi. Mm-hmm. ñu recommencer processus bi ay nit jàmm lañu. Ah, su Daw wax na ko waaye tamit dëmb liir naa communiqué euh, euh, bu Ogo Ogo euh, président de la des juristes africains waaw waaw ñëpp xam nañu ñooñu non seulement dañoo xarañ ci wàllu yoon mhm. waaye tamit ci Afrique fépp fu tàng dañ fay def mhm. moom tamit mu ngi wax pour ñu reporter Alioune Tine sama mag nee na tamit nañ dañu reporter kon y a des voix qui s'élèvent qui pensent qu'il faut reporter mhm. moi je pense que ci ci ci ci ay solution yoo xam ne yëpp dañ leen war a xool mm-hmm. xoolaat mm-hmm. fexe be ñu am une assemblée nationale boo xam ne euh, ñëpp dañ ci mën a gis seen bopp mm-hmm. assemblée li ñu desee peut-être moom moo bëriwul euh, déjà la coalition Yewwi Askan Wi euh, ne lâche pas également du lest parce que mënoo mënoo mënoo waaw ak ak di koy dóor nga ko doo jooy ñii dañ leen dañ leen dañ leen ñii leen dañ leen dañ leen dañuy dàq sànni seen liste. ñu am li leen naxari ñu leen doo leen manifester doon ko wax. alors ci ci loolu xam nga loolu tamit xel mënu ko nangu. ci loolu le vingt neuf la ñu woote encore man fay ñu ngi dégg même appel à casserole. boo xam ne concert de casserole. entre autres yoo xamante ne ñu ngi koy dégg également. dañu war a manifester situation boobu ñu yegg. est-ce que ëppul aussi. dañu war a dañu war a doo dégg mukk ONG droits nii war na kenn warul manifester amul. Mhm. le principe c' que tant que les gens veulent manifester de façon pacifique war nañu leen may ñu manifester de façon pacifique. kon lii ñu nar a xew le parce que gis naa waa Ziguinchor naan la ñuy manifester vendredi prochain. Mhm. ak ñu war a xew tamit le. 29 yooyu yëpp dañ ko war a autoriser ñu encadrer ko parce que suñ ko defee jàmm rek moo ci am. Mhm. ni mu amoon le 8 juin. kon il est de la responsabilité de ñi yore réew mi. pour que ñu encadrer les manifestations d'abord bañ leen a interdire encadrer leen hmm. pour que ñi nga xam ne am nañ leen naqari ñu mun ko wax. une dernière question balaa may jox Khady la sortie euh, du du procureur de la République euh, bi wax ne arrêté nañu euh, benn présumé rebelle boo xam ne Ousmane Diatta luy wuyoo gis nañu ce matin également ku ci mel ne Cheikh Oumar Anne wax ne un leader politique du nom de Ousmane Sonko dafa am ay link ak le MFDC yooyu. est-ce que du gën a peut-être dugal Sénégal dans dans l'impasse alors d'abord li ma bugg a wax mooy dama interpréter directement Macky Sall mm-hmm. conflit bu Casamance c'est quarante ans de conflit mooy conflit bu gën yàgg tey ci biir Afrique li ci ñàkk seen bakkan ci ay militaires bëri na li ci ñàkk seen bakkan ci ay gendarmes bëri na ñaari victime at état Sénégal ñu njëkk njëkk seen victime c'est des gendarmes à Diabir civil yi kenn xamul ñaata la ëpp na junni ñaar ñaari junni extra ñi ngi xam ne ñàkk nañ seen tànk wala seen loxo ak miin yi bëri na réfugiés yi bëri na bi léegi am na ñoo xam ñu ngi Gambie ñu ngi Guinée Bissau kon nañu bay caaxaan nañu bay caaxaan loolu dama koy wax en connaissance de cause parce que depuis premier accord de paix bi Abdou Diouf signé ak rébellion yi ak Kachew ak Kachew en guinée am na ay rébelles yu jóge ci biir àll bi ñoo toog Ziguinchor bokk na ci Sidi Badji mi nga xam ne moom moo nekkoon chefu MFDC mhm. ak Kamougué Diatta ak ñeneen ak ñeneen mhm. chaque fois saa yu accord de paix amee rek rébelles ni jóge ci biir àll bi ñëw ñun ñi société civile jigéen ñi les femmes collectif des femmes pour la paix en Casamance. Mm-hmm. Gabon Katoor ak ñeneen. Mm-hmm. séeréer yi séeréer yi dañu dem ba ci biir àll ba gis fa rebelle fekk leen foofu te maa ngi interpellé kilifa ci ci séeréer yi ñoom rek ñoo ko def beneen xeetu Casamance defu ko soose defu ko njaago defu ko mankaañ defu ko balanta defu ko séeréer yi ñoo fi jóge siin dem bi ci àllu Casamance gis fa rebelle nee leen jóge leen ci àll bi ngeen ñëw. Mm-hmm. parce que mu leen fi nekk dara ay Sénégal yi doomu séeréer am lañu. kon politique bi nga xam moom moo fi nekkoon ci jamono Ablaye Wade ci jamono Abdou Diouf ak jamono Ablaye te moo fi am bi léegi mooy dañuy encourager rebelle yi pour jóge ci biir àll bi dell si waat ci biir dëkk te loolu moo tax tey rébellion bi n'est-ce pas ñàkk doole dooleem dafa wàññeeku parce que par vagues successives am na ñoo xam ne dañu jóge ci biir àll bi dellu si waat ci biir dëkk yi. Mm. nekk ci jàmm. c'est clair man saa yu ma demee Casamance rek li ma njëkk laaj préfet yi mooy. naka situation sécurité ci dëkk bi. Mhm. bu ma jógee Casamance moo tagul deux semaines. dañ leen naan ah jàmm de am na fii ma ne la rebelle yi nag ñu ne ma ah rebelle yi de am nañu nekk ci àll bi waaye ñu bëri ñu ci biir dëkk yi. waaye ñun dañ leen ne tant que nag ci biir dëkk bi di dox tànk jàmm nest kenn du leen laal. Mhm. waaye bees boo leen yoree gànnaay bu gaan di fitna rek ñu teg la wax seen kaw. nekkinu rebelle ci biir dëkk yi ci biir Dakar ak Ziguinchor ak ñeneen dëkk yi yàgg na ancien rebelle ñoo xam ne teg nañ seen gànnaay bëgg a ñëwaat dans la vie active. Mhm. Ousmane Niantang Diatta fan la gën àdduna Nioro fi. Mhm. c'était l'un des grands chefs du MFDC. kon nañu bàyyi li nga xam ne moo ma fi xew en ce moment tey kilifa yi jege Macky di koy fooy dégg naa sax Guy Marius Sagna waxoon na ko. Euh, ci mars deux mille deux mille vingt et mhm. nee na ñi nga am dañ leen jàppoon fii à Dakar ñu leen doon laaj euh, euh, noo leen sant mbaa dëkku leen Casamance rek te it nii benn vidéo benn manifestant boo xam ne moom dañ ko jàpp ñu ne ko waaw yow joolaa nga n'est-ce pas est-ce que doo rebelle mhm. donc nañu bàyyi di instrumentaliser cette question là parce que nag bi mu gënoon a métti diggante armée ak ak ak MFDC mhm. jamono Abdou nangu ay ministre am ak ñooñam wala kenn fi ci biir Sénégal di dem ci ay média ba di stigmatiser waa Casamance. kon ñii fitna dañu bëgg a yeewaat dañu bëgg a yeewaat fitna fitna boo xam ne dem nañu ba fay ko safara boo xam dem nañu ba fay ko man nañu bëgg dañ ko bëgg a yeewaat. Mm-hmm. uniquement pour discréditer un opposant et rester au pouvoir nañu toppatoo seen biir ak Sonko ñu bay Casamance tranquille. c'est muy Amnesty muy RADDHO muy les mouvements des femmes na a beaucoup yi pour que jàmm nekk tey ci biir Casamance. Mhm. du ñu nangu ay nit yoo xam ne leneen intéressé lu ay place ak ay teranga pouvoir bi moo leen intéressé bëgguñu Macky Sall pouvoir la ñu bëgg ñoo ñoom yëpp pouvoir moo leen intéressé mhm. ak teranga yoo xam ne moom ma nekk autour du pouvoir kon na leen freiné mhm. su dee police dafa dem ba di naan ay nit yow yaa ngi sant euh, euh, géeju wala wala leneen est-ce que de rebelle c'est grave c'est extrêmement grave mm montre que hiérarchie policière dañ ci ànd et que au plus haut niveau de l'État dañ ci ànd malheureusement il faut qu'il soit responsable mm-hmm. xam ne problème Casamance liggéey bi nga xam ne moom la ñuy def pour dindi euh, rébellion bi ci ci mm-hmm. xelu nit ñi Casamance dindi ko seen biir xool liggéey boobu ñi ci ñi ci investir dañoo bëri kilifa diine yi ni ma ko waxoon kilifa aada yi société civile presse bi sax dañ ci liggéey donc on attend qu'il soit beaucoup plus responsable. Mm-hmm. su dee ministre wax na ko dara fekkoo ci parce que Macky Sall ci boobu moo ci ànd. Mm-hmm. en tout cas li ma xam mooy. Mm-hmm. tey le sentiment de frustration de mécontentement mu ngi judduwaat ci Casamance. parce que ñi dañuy xalaat ne tey nekkatuñu des Sénégalais. au même titre que les et c'est dommage waaw soo sante jéeju soo sante nii et euh, rek siiw il faut ñu diñ la leneen pour mun la yàqal ak les du Sénégal. c'est dommage loolu dama koy wax. Mhm. encore une fois di interpeller directement le président Macky Sall pour que euh, muy journaliste yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk du uuf ci safara boobu. Mhm. wala ay ministre mu rappelé leen à l'ordre mhm. waaw seen diggante ak Sonko nañu bàyyi askanu Sénégal arbitré ko. démocratie la ñu nekk askanu Sénégal moo war a arbitré waaye seen yeneen. genre complot yoo xam ne daan nañ ko wax ci année quatre vingt ay jamono Mao Tse-tung loolu mënatul am léegi. Mhm. xam nañ nekk réseau comme voilà. <laughs> Euh, point bi bëggoon nañ